alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala man la rasula wala nabiya ba'dahu sayyidina wa mawlana muhammad ibni abdillahi rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi diin ah, mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasan yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo mu rajo télévision bu wal fajri ah, yéen ñëpp rek maa ngi leen di boole nuyo bi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan a doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo man doy walis ko ma tibbeeku ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi di dellusiwaat ci kartanal yàlla Euh, fas yéene sof li ma doon sos ak yow ci waxtaan yépp passé te mooy nit ki su bëggee mat nit ki su bëggee gën dafa war a fexe ba féetewoo yàlla dafa war a fexe bay wéttalikoo turu yàlla wi dafa war a fexe ba lépp loo xam ne dañ ne ku ko wax walla nga def ko say bàkkaar muy say tilim tilim yàlla dana la ko raxasal dana la ko infancel mu góorgóorlu ca loola ba ba lu ñuy ba lu ñuy wax mu wax ko muy lu ñuy jëf mu góor góorgóorlu ba jëf ko te xam ne bàkkaar dafa doy waar bàkkaar li muy waral dafa bëri li muy waral dinaa la ci limal yenn nga man caa déggee yenn ya ma bàkkaar daal dana waral bekkoor moo ci baatu bàkkaar mu jox la bekkoor képp ku nuur ci bàkkaar te na jullit nga bala ngaa dee danga nga dee ci bekkoor bu la yàlla manee woon gan sa loxo jot sa gannaaw loo yootu jot sa loo bëgg a dog dog ko loo soxla mu faju nga nga jàllar bi ku dëgg ca moyen yooyu yàlla jox la au lieu que nga di ko dimbandikoo di ko ca topp yow nga far di ko dimbandikoo di ko ca moy bala ngaa dee da nga bekkoor ba ku la xamoon fakk la bala ngaa dee danga nga bekkoor ba ku la ñeexoon yërëm la moo xam bekkoor ak yaakaar ju tas bekkoor ak alal ju yàqu beekoor ak man-man gu tuxu beekoor ak jafe-jafe yi dal ci sa kaw wala mu dal sa kaw njaboot te mënoo ca dara lii bàkkaar dana ko waral kooku yonantu bi tënk na ko ci xadis bu gàtt cité rek benn mooy bu ñuy tuddee ak njaaloo waaye tudd gi ko tudd dafa caa dugalaale yeneen bakkaar yi mu ne azina wal ghina la yastami'ani li ñu tuddee mooy ak koom-koom ñoom ñaar mënuñoo dajee su koom-koom nuyu see rek bu ko mooy yàlla nuyoo moom mu ko gannaaw dem bu mooy yàlla nuyu see koom-koom bu ñëwee bëgg a nuyoo fekk ko fa dem kon ku bëgg a dalal koom-koom te gën ci koom-koom yi mooy xel mu dal fexeel ba teqale sa bopp ak mooy yàlla mooy yàlla yooyu nag ba ca gën a gaaw ci teqale nit keeg koom-koom mooy lu ñuy tuddee njaalo moo xam yow mi may déglu yaa ngi koy def te mosoo am jabar boo ci saxee rek sa dund dana nëx boo ci saxee sa dund dana jafe soo ci saxee danga nga dem a dem bay jafe-jafe di maanaam di jooy te fekk kenn dóorut la dama dem ba war a mën a tagg buumi gàcce yi lépp luy nit di toll tollu nga ko waaye mënoo faj dara jàng nga bay xam i diplôme fu ne nga déposé say CV kenn xooxut la loo yaakaar mu tas boo ca nekkee di jàng nag nekk ca mooy ga bu la yàlla dimbalewut man ngaa dem ba war a def ne yaa ngi def examen nga mujj bokk ca ñi nga xam ne dañuy redoubler ah, bu la yàlla dimbalee tamit ba jàll la sagal la man ngaa dem ba diplôme yi nga doon wut yëpp am nga ko jëf jafe la fu ne nga dugg dem di ñaan lu ji fu ne nga dem fekk lan doon def ci lu bon moo mujj këpp ci sa kaw ndax léeg-léeg ni di def lu bon di gën di yokku rek jàpp ne man def lu bon dafa maa jig fekk lu bon day wuti mbokkam rek bu wutee mbokkam mbokkam wuti xaat mbokkam mbokk yooyu buñ bëree ba sot la rek nag sa bunt yëpp mujj tëju te ñu may déglu bëri na ci loo xam ne du bëri ñu ñu kenn ku nekk na man de lii man dal na ma xanaa kii man lay wax man de kii nangam ak nangam fekk lépp balil insaanu ala yi basira kon bàkkaar li lay xamal ak mbonam ak garaawiteem la muy njëkk a bijjal ka koy def mooy lu ñuy tuddee bekkoor ñaareel bi bàkkaar sëf la léeg-léeg boo demee di ca sëf di ca sëf ba xenu ca loo xam ne xattana tutoo ko loolu dafay mujj jeexital ci sa wàllu santé mën naa dem sa sëf diis ba téye say tànk léeg-léeg sëf ba diis ba téye say sa biir léeg-léeg sëf ba diis ba téye sa ndigg li léeg-léeg sëf ba diis téye sa ndox sa doq gi wala mu téye loxo ya wala mu téye bët ba wala mu téye làbbeñ ya wala mu téye xol ba wala mu téye siddiit ya wala mu téye maanaam suukar saa yeneen yoo xam ne ni aju ca kon daal bàkkaar bu bëree ba jéggi dayo mën naa dem ba sabab ak wéradi nit ki mi ngi fi rek waaye nixatu fi ndax nekk fi ñaareel li muy jariñ mooy man-man waaye yaa ngi fii waaye mënatuloo dara ci lu bëree bëree bëree bëree bëri bëri loolu lépp nag mën naa dem ba bàkkaar yu bëri yi ngi doon def mën naa dem ba mujj daanu ci sa kaw jural la yooya yal na yàlla am musal mu ci ñaareel bi ba ñetteel bi bàkkaar dana sabab maanaam fan wu gàtt nit ki di mooy yàlla di mooy yàlla di mooy yàlla ba yàlla mujj jéppi ko mujj leem aw fanam mu mottalee dundam ga ci biir suuf léeg-léeg nga gis deeyin yi ak deewin yi ñaawaay gaag gàttaay gaag la ca xaju da ngay yëg ne kii borom bi doo nga ko jéppi ba leem aw fanam waaye moom bàkkaar moomu tamit bu bëree dana waral mujj gu ñaaw di dee di di dee ñi lay sabaatu seede bi doo ko mën a tudd dema dem ba toll ci sukkuraat sa mbokk yu bari mujj ne nañ ko jàngale yaasin wala ñu wàcceel ko kaamil mu far lu benn yoon loola lépp nit ñaa ngi jàkkaarloog moom yal na yàlla musaluñu ci boppam kon bàkkaar dana waral bekkoor bàkkaar dana waral gàttu fan bàkkaar dana waral ñaaw deegu ñaaw bàkkaar dana waral feebaru niiru feebar yu daanu ci kaw boo ca bàyyeekoo rek beneen ñëw taxawaat ci sa kanam nuyu la ba mu mujj daal yëng ci sa yaram daal waaru booy woo xam ne yaakaaratuloo mu setati mukk fa fexe mu nekk def nga ko ci te gisoo ci benn tene gisoo ci tamit benn ak yokkute waaye tamit bàkkaar dana bari ba sabab xol bu kaste ndax nit ku nekk keroog ba mu gane see àdduna rekk xolam dafa weex taal mel ni këyitu tabax amul benn tâche bu demee ba mësoor bàkkaar bi mu njëkk a def day soppeeku benn tomb bu ñuul ci xolam mu yokkaat bàkkaar ba tomb ba yokk mu defaat beneen bàkkaar mu yokk muy def bàkkaar muy yokku bu bàkkaar yi demee ba bari nag day dem ba tomb bu ñuul booba mujj lekk tomb bu weex bi xol ba mujj kaste boroom xol bi dootul amati li ñuy tuddee maanaam réseau dootul mën a kapteeti waaraate dootul mën a kapteeti dëgg dootul mën a kapteeti pour pratiquer lu yàlla bëgg bu yore woon ab rajo poste rajo am wala mu yore télécommande am fu mu dégg fuy jàng alxuraan mu toxal fu mu dégg fuy jàng ay xasaayit ak ay madaay yoo xam ne suñu maam yi leer yee ko sotti woon ci yonantu beeg diine ji mu toxal su ko defee léegi di déglu ay caaxaan ak yeneen la muy man ca kasetu caaxaan ya ca jënd ko ak def ca alalam ak rey sab taam genn wàllaati genn wàllaatam mënut ko ci lu jëm ci diine ji loola lu koy waral xol booba nga xam ne fi la daan lumière yi daan jaar di mën a capter mu mën a jeexital ca cër ya mu feeñ ni muy joxeeg na muy dundeeg na muy dundale xol baa mu ci wu muuru ci kàllaa ba raana ala qulubihim maakaanoo yaksibuna ñetteel bi tamit kooku la borom imaamul axdari tuddee tamsul basirati mooy far gi sab xol waaye bàkkaar day mujj sabab lu ngi tuddee maanaam xislaan mooy yàlla geccal la ku la tuddati mu ne kooku bu ma ko kenn tudd ku bon ku yées nga taxaw téye kaamilam alquran ci sag mbon yaa ngay jàng ngir bàkkaar yu bon yu nekk ci yow kaamil ba léemu la ne la su booxum bu ma téyeti nga jàng mu ne su mbon gu jéggi dayo goo xam ne mi ngi nekk ci yow moo tax bàkkaar ñépp a ko ragaloon ba mag ñi dañ daan wax ne foo dégg bàkkaar bu la fekkoon nga amee dàll yi weñ nàmm ko di daw ak moom ba mu ràpp boo xam bàkkaar bu ñuy xool la bu ñuy déglu la bu ñuy làmbu la bu ñuy teew la bu ñuy teewlu la yëpp dawal nga moytu ko looloo waraloon mag ñi dëkk buñ mosaana sanc bu mosaana xumb fa ma bëri fa rek ñu gental dëkk ba wan ko gannaaw dem seetiwaat dëkk boo xam ne kenn nekkut fa ndax jàppoon nañ ni àdduna bii duhul dëkk waay waaye ay tool la tool nag dañ cay bay rek lu ñu war a mën a jëriñoo ëllëg ci àllaaxira waaye bis boo jàppee àdduna muy kër nga jàppee ko muy dëkk dangay ngay mujj maanaam perte waaye da nga caa am na na ko maam El Hadj Abdoulaye Niass woon muy sanc fële Kaolack ca leew na ñaseen dafa ne nañu njëkk rëdd armeel yi mu ne fii nag mooy kër dëgg gi ñuy mujj mu pare mu ne nañu rëdd ja euh, jàkka ji muy zaawiya bi mu ne fii lañuy préparer li ñuy yóbbu ca kër dëgg gële ma njëkkoon leen leen njëkkoon leen rëddal mu ne nag bañ bañ paree ca zaawiya ba ak jàkka ja mu door a nag rëdd ay néeg mu ne xam ngeen néeg lu muy tuddam ñu ne ko ah kay xamuñu ko de ñas mu ne néeg tudd néeg néegandiko la tudd fii la ñuy néegandikoo maanaam ba suñu borom soxla ñu ñu door a dem nag ca bàmmeel ya kon nag ay sët amul tur lam doon rek la tudd moo tax nga dégg ñu ne sëg ya ña nga wër sëg ya oto yaa nga wër sëg ya nit ñaa nga wërsëg ya mooy wërsëg mooy li wër wërsëg waaye xéggul ci biir sëg kenn du dee ñu ne nañ ko suuraaleeg wërsëgam wa oto ba déedéet day ñëw rek wërsëg wa nekk ca pegg ba kooku mooy wërsëg mooy wër na sëg bi waaye xéggul ca biir naka noonu tamit euh, tabaarakallaahu kër gaa yeneen yi ca aju yëpp ñi ca gën a gore xadi daal duñ passé kër ga beneen xaaj ba nag ñooy ñooy wër sëg ya waaye ñoom duñ dugg ca biir sëg ya ndax nit ku nekk ñetti xarit nga xarit bu njëkk bi moom soo mënee mu nekk fi ànd ak yow boo mën a tut mu woon la gannaaw mooy kër geeg alal ji nga gënoon a fonk ak lal baag ah, yére ya nga soloon ak montor ba moo tax nit bu génnee àdduna ka gën a am xel ca famille ba fekk ko ca kaw lal ba lu muy wax wàccee leen ko lal bi te yaa ko defaroon wala nga defar lu ko lal un million maa ngi ko commandé Dubaï maa ngi ko commandé nangam di rëy rëylu ñu wàccee la lal ba nga taxaw ñu ne tekki leen montoram bi yaa ko takkoon dox heure ko taxoon a jug kii moom bokkatul ci heure yi dee na ñu tekki montor ba nga doon tiitaru deux cent mille ak cent mille franc quatre cent mille laa ko jëndee du yàgg ñu ne summi leen yëreem yi ko defee yëre yooye nga jëndoon nag sonn caag lépp ñu summi ko mu gi la muuree la ay darab ak ay mbàjj yi bu yàggee yàgg gannaaw bi ñu la génnee ne kër gi yóbbu la ca wanag wa ñu gën a xamaat xel ñëw ne waaye génnee lañ ko kër gi mujj jàppoo la ak étage yaag air plus vingt air plus quinze ak plus dix yëpp gaa yi jàppoo rek toppaat escalier yi yaa doon xéeg ak wàcc waaye tey dañ laa wàccee su ko defee nag léegi génnee la ci yóbbu la ca morgo ba takk maanaam jël glace ga diw la ko la ca xaju su ko defee léegi nag mujj nañ la génnee nañ la lal ba wàcce lañ la lal ba génne la néeg ba génnee la wanawa mujj nañ la génne kër gi ñu la mujj yóbbu ca armeel ya duñ ca yam gaa yi jàppaan nañ la jàppoon nañ la yóbbu nañ la génnee nañ la tey dëkk bi dëkk bi lañ la far génnee yóbbu la ca àll ba ca armeel ya nga xam ne mooy boo ko xalboo armeel mooy armoire rek sa armoire bi nag quatre bataala six bataala lan ca dencoon rek moo ca nekk moom nga ca mën a jëlee waaye loo ca defutoon doo ko ca fekk kon nañuy góor góor lu jiital li ñuy def ci suñu armeel yi mu hëpp nekk ci suñu armuwaal yi wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu indallah ni ko yàlla waxee ci alquranam ju tedd ji léegi nag bu lay gungee wàccee lal bi rek lal bi moom du la gunge yaa ko jëndoon te moom nga gënoon a jege montor baag sa yére yi armoire baag bâtiment ba étage yaag ya waa tabaarakallaahu eh, mobulu ne baag télévision baag yeneen yi ci xaju dara du la ca gunge ñoom ñoo gën a gore at dañ ne rek yow daal dañoo tekkee koo woon ci ñeneen ñëw ci yow tekkee ko ñu bàyyi ñu fi ñun tamit dañuy tekkee ku jëm ci ñeneen rek yi ca gën a gore ñi ca gën a gore xaw caa baax xarit yaag lenn ca oto ya mën nañ la caa teg mu gunge la waaye bu ñëwee day wër sëg yi rek fa lay xem ñenn ngi ñëw wër bàmmeel ba fa la xem xarit bu ñetteel ba nag mooy jëf jë bu baaxee bu bonee mooy wax ne may leen ma ma dugg bu duggee di lu baax day soppeeku jëmm ju rafet sottee ko parfum bu neex mu tuuroo ko nga xemem ko ne ko yow jëmm ju rafet ji daw sin nga yegg mu ne waxuma yegg si waaye damay soppeeku lal nga tëdd sama kaw maa doon jëf ju baax gi mu jëf nga tëdd ci kawam ñu ubbi la fenêtre ci jana nga jot sa genn wàllu xéewal di xaar ñëwal bufta ba nga dekk téye sa téere ci ndeyjoor ñi ñi regle la regle bu yomb nga jéggim siraat ci xëf ak xippi jël sa losement ci aljana yàlla nañ ci yàlla boole suy jëf ju bon nag buñ lay dugal ci armeel ya rek mu soppeeku jëmm jëmm ju ñaaw mel ni mbaam xuux xaj mu daw ma daw dëgbal si la man yow jëmm ju ñaaw ci xet gu bon gi nga xamee bul ma jege mu ne waxuma jege sa kaw laay war jëf ju bon ji nga doon jëf ci sa kaw laay war ba ñuy walee bufta ba ñu ubbil la feneetar ci safara nga jot sa genn wàllu mbugal sa rooxu ga ñu tënk ko du mën a wëtti du mën a defa communication benn rooxu fa ngay nekk fa ngay nekk bañ wal bufta ba nga dekki téye sa téere ci nday joo ci càmmooy wala ci wara zahri sa gannaaw yi gannaaw giseeg yàlla jéggi siraat surax dugg ca paxam safara ma yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee kon nag jëf yu baax yi ngay jëf ci saraxe jàngal quran jokk bokk wax lu baax dimbale say mbokk yi toppatoo say waajur yi julli juróom yi war weeru koor lan la booy tëdd ëllëg jëf yu bon yi sàcc yi tiriyan jëw wax wax ju ñaaw tëddee jigéen ñi tiriyan àlli jàmbur yi këpp kees gi tas yaakaaru askan wi di xor doomu aadama yi yàq bokk gi su ëllëgee ab lal lay doon bu ñuy sëpp ci sa kaw moom nag mujj tëdd ci sa kaw bi nga nekk fii yaa ko waroon di war oto yi mu neex jëndoo ko tiriyan rek dinaa ànd ak jongama yi yi tëdd seen kaw te na nga ko bëggee woon fekk maanaam tabaarakallaahu takkoo leen woon lii xalal yi nga war ko yooyu yëpp mu doon bànneex boo xam ne yaa ngi ko doon bànneexoo yàlla na azhabtum tayibaatikum fi hayatikum dunya dunya wastamtaxtum biha fal yow ma tukki saw na azabal huuni su ko defee nga mujj torox mujj bokk ca ñay dem safara yàlla yàlla musal ñu ci bàkkaar moomu nag di sabab yi day waral nit ki fu ñu ko tuddee yàlla ne ko bu ma ko kenn tuddati maa ko jéppi maa ko maa ko bañ mu gàccal la geccal la bërgëlal la ba mel ni xar moo xam ne amul borom dafay dem wuti rek fu ko neex fanaan fu ko neex yendu amatul kenn ku koy jëndee ka yeewa ka def nangam mu nekk nit ko amut kilifa ndax yàlla ma doon kilifa ma waroon koo kilifa moom moom mooma kilifa wut ko ba yàlla mujj jéppi ko ba wax ne bokkatut ci man yonentu di ko jàngale ci lu bari lay sa minnaa lay sa minnaa foo jàng jàng ko bokku ci ñun bokku ci ñun loolu dafa bari su ko defee kon nag bàkkaaram boobu day sabab loolu lépp nag moo tax nag ñëpp a ko ragaloon ah, te gis nga li lay xamal bàkkaar ak mbon nga ak jara daw ga ñeent la alquran tudd kenn ku ne benn bakkaar ga def yàq na sa àdduna yàq sa àllaaxira ba mooy kenn yàllaa ko dabaatal ab yërmandeem ki ci njëkk muy iblis ak mii di ko bon ba ku ko tudd tudd ko ku ko tudd léemu ko ku tudd muslu ci moom li coow luy bëri bari benn bàkkaar dong la def muy bàkkaarab lu ñuy tuddee rëy yàlla xutal na ko wujji mu bëgg a balballu ci kaw wujjam wi di aadama maa ko gën man noobul laa sa tuddiw laa maa moom duñ benn kii duxuma maasam dërëm ak dërëm mën a ànd kii duxuma nangam ak nangam xeeb ko ba rëy ci kawam ak bari léegi loola ko tay moo ko yàqal lépp yàlla demoon te garaatam ci maa manaaka an tasjuda li maa xalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min aliin réew yi Louga nag nag lu ko yóbboo mooy xool cosaanam ci xalaqta nii min naar wa xalaqtuhu min tiin kon toog naan man satu diw laa nangam laa sant di rëylu ngir ak xam-xam wala ngir ak juddu wala ngir ak ndomba tànk wala ngir ak alal soo ko defee iblis say mbokk benn bàkkaaram booba dana lañ la boole mu dugal la safara ndax yonentu nee na ku ñu vérifié xolam fekk fi lu toll ni peppab atom ci baag ci rëy kat ak aljana du ko xeeñ te kat ak aljana doxab juróomi téeméeri xat la laa yadxulul janata man kaana fi qalbihi misqaala saratin min kibrin rëy nag bañ ko laajee yonent bi mun a dugut kër gu rafet de dugut oto bu rafet de dugut soxna su rafet de waaye rëy piir ñaari yëf la mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi batarul xaqi wa xamtu naas saa yoo xeebee nit ñi ngir sa juddu wala nga xeeb di ñi ngir sa halal wala nga xeeb nit ñi ngir sa eh, ndomba tànk wala nga xeeb nit ñu ngir sa xam-xam yooyu yëpp su boobaa mbokkam xaaruna nga mbokkam iblis nga yàqule nga waaye tamit saa yoo nekk koo xam ne bu la waxee dëgg mu mel ni dañ laa rayal sa taaw a jabar la ko wax nga mer sa doom sa mbokk sa rakk su boobaa tamit yow ku rëy nga kon iblis ak yàquleem gi lépp benn bàkkaar nga ko yóbboo muy bàkkaara ba rëy moo ko tax yàlla demoon te garaatam lépp mu mujj yàqule ñaareel bi aadama euh, ak euh, topp am nga ak mbaaxam nga lépp euh, benn bàkkaar ci zahir di topp yàlla ci baatin mooy li ñuy tuddee xiir te bu ko yàlla dabaatalu toon yërmandeem rek musiba am ku ñu may lu tool ni aljana ni mu yaatoo ni mu neexee tere la ca genn garab ngay jéem a xam ni mu mel foofa la xiir xem ñun ñii ñëpp nag suñu xiir gi ci aadama dong lañ ko jëlee ndax ku xas dugg aljana ba génn ko dara mën a di sa bët moo tax doomu aadama loo ko joxati mu ne dolli ma xamul dara du ko doy loo ko jox mu ne dolli ma yonentu wax na ko biirab doomu aadama daal lenn dong moo ko mën a fees mooy suuf waaye loo ko jox lu dul suuf mu ne ma du mu ne dolli ma wax na sax ne bu amoon ñaari xuur ci wurus su boobaa labbutaka saalisan dana bëgg a sàkku bu ñetteel ba da ngay toog su ma amoon pàkk bu baax pàkk ba ñëw su ma ko tabaxoon mu baax nga tabax ko bu ndox ñëwoon mu baax ndox ma ñëw mu courant ñëw bu baax lu tax mu baax su ma amaatoon baneen di ko luye baneen ñëw su yeneen ñëwoon kay sama xel gën a dal mu baax nga toog ne su ma amoon oto bu may doxee sama sama soxla yi booba ñëw du baax su ma amoon ay taxi wala ay tataa wala ay kaar bu may dawal maanaam pour mën a am dépense bi loola ñëw lu tax mu baax loola ngay ñëw loola ngay ñëw lu ñëw du baax doomu aadama daal loo ko jox mu ne dolli ba ba mooy mu dee nga gas sotti ci suuf si si lay door a feesee moo tax yonent bi ne wu yamlawu batna aadama ila turaab biiru doomu adama daal suuf dong dong dong dong moo ko mën a fees waaye leneen lu dul suuf boo ko joxee nit rek dana la wax ne maanaam dolli waat ma kon xiir googa yëpp ci aadama rek lañ ko jëlee wala qad ahidnaa ilaa aadama min qabl fa nasiya wala najid lahu aasiman ñàkk yetu googa nag moo ko dal moo ñu dal ñun ñu bëree bëree ba tax na tey ña ko ca xamoon juróom lañ muy ulul asmi aadama mu yonentu yàlla muhammad noox ibrahima moussa isa moom nam ne ko wasbir kama sabara ulul azmi mina rusul ñeneen ñu du juróom ñi rek asmiyatu ga ñoom maanaam amuñu ko moo tax ñoom ñi ko am ñoo gën ci mbindeef yi defee kon nag aadama bu yàlla dabaatulu toon ci moom yërmande maanaam mu yàqule waaye nag gannaaw bi mu xiree yàlla dimbale na ko dabaatal moom ci yërmande loola ko dimbale mba euh, tax na maanaam fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim bi ci tegu tamit mooy ñaari doomi aadama ya xaabil ak xaabil la dal xaabil ci xaabil ba mu koy rey benn bàkkaar la mooy iñaan ñaana na ko tal ko sabab mooy jigéen rek ñu xëccoo ko maa koy takk doo ko takk suñ ma koy xeñ dañ fay nekk ñun ñaar rey na ko waxoon naa la ko loolu lépp iñaan la moo ko yàqal fa tawaqat nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin ba ca tegu tamit ah, yahood yële dëkkee woon xuur wu ñu tuddee aylatu yàlla yónni woon ñoom yonent bu tuddee Daawuda la leen jàppoon mooy xiriréer yi naan yàlla kañ la commencé bind àdduna bi ñu ne leen dimanche kañ la pare ñu ne àjjuma diggante tàkkusaan ak timis ñu ne kon naxnu abnaa ullaahi wa ahibbaahu ñun kon duñ liggéey samedi dañu ci jël feet bu yàlla nag nattu leen samedi bu jot jën ya bëri te maanaam yeneen far jën du bëri yàlla nag saa yu namee ba alak aw xeet da koy tere dara ba pare bari la mu tere ci seen bët ya ba duñ ko mën a moytu ñenn ña tuxu ba gaa yi commencé rëbb bu jën ya ñenn ña jaal bi ko gas ay kaaw jën ya dugg ca samedi dimaas ñi rëbbu leen ñeen ña ne ah ñun di rëbbu ñu waaye bu ngeen rëbbee ba toog bu jën may leen ñu miccaat bu leen amee jën yu bees tamit may leen ñu ci yàlla nag ba mu ñëwee ña nga xam ne dañoo tuxu woon gàddaay jaayu bon yooya yàlla musal leen wax ko ci alquran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 ba ko am jaaxle jàq daw tàllali ko loxo benn jigéen nag am problème ñu yóbbul ko ko mu ne ko da koy fanaanoo mën leen a wax bërsete la ca xew seytaane man ko mu fanaanoo ndaw sa ndaw sa jëlee ca ëmb seytaane ne ko nag benn nga rey nga yàq ëmb bi rey ndaw si yàlla bi ko timit su jootal xëram bu li ko may ma kalaameel nit ñi weer la su ko defee nga mujj yàqule ñu la daan fekk fii dina jox àddiya ak xaalis di sukk ak raam summi la ñaari dàll di la far jël seen dàll ya di la ko dóor di la sànni ay xeer moom nag àddunaa ko gënal àllaaxira moom mujj yàqule nag ba mujj weddi yàlla ànd ak iblis mujj yàqule ba alquran ne id qaala cheytaanu lil insaan nikfur fa lamma kafara qaala inni bariun minka ndax inni yaa axaafu rabbal alamin su ko defee kon nag juróom ñii ma tudd kenn ku ci nekk benn bàkkaar nga def sa benn bàkkaar booba yàq na sa àdduna yàq sa àllaaxira kenn dong la ci yàlla dabaatal ngir ak yërmandeem muy aadama bu ko moyee ñeent nga ca des ñëpp mu bi nañ alku benn bàkkaar lañ def iblis ak lay coow lay bëri bëri benn bàkkaar la rëy aadama ñaari doom ya xaabil ak xaabil bàkkaar ab iñaan asxaabul ay lañuy ñun soppi woon gor ak i mbaam ko bàkkaar ab yi aadama ak la ca xaju bàkkaar ab xiir barsiisa bàkkaar ab weddi yàlla mu yóbboo ko sujootal xiram yóbboo ko faat bakkan ak yeneen ya ci xaju loolu lépp nag mu jël ko alkane kon yow mi may déglu su fekkee da ngaa bokk ci ñu sàggan ñi nga xam ne bu ñu xëyee takk seen dàll yi bala ñoo tëdd mooy yàlla fanweer ñii ñeen fukk ñii juróom fukk ñii téeméer lii mooy yàlla ak làmmeñ la ci wax loo warta wax lii mooy yàlla ak nopp la ci déglu loo war sa dégg lii mooy yàlla ak awra la lii mooy yàlla ak biir la ci denc ci loo ci war ta denc lii mooy yàlla ak sa loxo la jëmee ko ci loo xam ne kenn xamu ko lii mooy yàlla ak tànk la doxee ci loo xam ne nii tabaarakallaahu yàlla gërëmul ko lii mooy yàlla ak kartan gi la yàlla jox nga waroon koo delloo yàlla nga cay dimbali ko di ca mooy yàlla su boobaa kon kooka boromam bu ko yàlla dimbali ko yàqule du mën a weesu ci moom kon nag bàkkaar dana sabab kenn ci juróom yi ma la bàkkaar dana sabab bekkoor kon buñ bañoon bekkoor nañ daw bàkkaar bàkkaar dana sabab feebar bu bon boo xam ne kenn du ca man dara suñ bëggee mucc ci feebar yu bon yooya nañu nuur ci mooy yàlla nañu bàyyi mooy yàlla gi ñuy nuur te mu nuur ci topp yàlla bàkkaar dana sabab deegu ñaaw bu ñu mujjee mucc ci deegu ñaaw mu am mujj gu rafet nañu nuur ci topp yàlla mooy tandiku bàkkaar bàkkaar dana waral sa xol bi saturé wu ba mujj dootul amati réseau tomb bu ñuul ba lekk tomb bu weex ba da du maanaam dootoo mën a capteeti benn ak leer gu bàyyeekoo ci yàlla kon buñ ko bëggee ñàkk nañ bàyyi bàkkaar suñ ko bëggee am moom leer ga nañu topp yàlla bàkkaar dana waral yàlla jéppi la bërgël la ba ne yaa ma doon jéem a naan maay sa kilifa man de booletuma la ci sama njaboot gàccal la gàccal la kon loolu bàkkaar dana ko waral ba tax na nag ñëpp ñi xamoon bàkkaar la muy jur ñu ko doon daw ba tax na juróom ñii ma limal la kenn ku ne benn bàkkaar ñeent ñëpp seen àdduna yàqu na ak seen àllaaxira kenn ka dong na yàlla dabaatal ci moom yërmande waaye bu ko dabaatal bu ko dabaatalu toon làmbaay ñaaw ki nañ koy waxee kon nag yow jullit bi may déglu maag yow yëpp nañu góor góorgóorlu ci def santaane yàlla yi lañ ca man li ñu yàlla sant nag lépp kenn mënu koo def ak loo góorgóorlu waaye tamit nañu góor góorgóorlu ci bax yi am mooy yàlla yi donte bakkan bi ñu yàlla jox da ko mooñaale ki bëggi bëgg mooñaale ko ak ay xememtéef mooñaale ko ak ay bànneex waaye safara ci boppam nag moom dañ koo ñagee bànneex jël aljana ñagee ko ay ay ay naqar ak ay jafe-jafe kon nag ku bëgg maanaam bëtt miirab aljana booba ba mën a dugg aljana waaye waaye fokk nga dund ci naqar dund ci jafe-jafe dund ci jafe-jafe ndax loola dëgg-dëgg jafe-jafe nga commencé nelaw ni mu neexee fi nga demee ba nga xam ne nelaw yaa ngi neex sedd bi ñëw nga sangu ñu ne la fajar gi jot na noddukat baa ngay waaj nga sàngeeku beccingal say lal sóoru ndox mi sangu bu ko laajul nga jàpp ni lëndëm gi dansé nga wàcc foo mën a nekk jël sab torsu dëgmal dem ca jàkka ja loolu lépp lu naqari la bakkan bëggut ko waaye boo ko bëttut dee da nga bëtt dem maanaam topp nelaw yi neex yi bànneex yooyu mooy tax nga bëtt maanaam ñagat safara booba nga xam ne ay bànneex lañ ko ñagee dem timit jul sa ñaari rakkaxa julli ko jël jàllal bi ko julli ñaari rakkaxay suba ñëw takkaayu dem di liggéey yi ngir loo dundalee sa njaboot bañ a sàcc bañ a fen bañ a jaay sa ngor nga bàyyi lekk bàyyi naan xiifal sa bopp ni mu méttee loolu lépp nga bàyyi ko wax ni mu méttee nga téye kaamil bi la nga ca man di ko jàng téye sa kurus di jàng salaatul fatih ak salaatu ala nabi ak istixfaar ak ak jéggalu yàlla yeneen yi ci nga nekk ca alal ni mu neexee nga dajale ko ñu la jox ko ñii nga jox ko ko sa bakkan ca neex ca ñaxtuwuloo ci ñànkiwuloo ci ni tumuranki méttee ñu la takkay sa bagaas nga dem tumuranke ji màkka sànnil sa yére yi nga soloon nga terax laayu boole kooku waddu di wër kaaba di baagante dem fale minan amul lal amul dara ngay tëdd ci suuf ak mat la ya dem arafa muy ab àll loolu lépp ay jafe la ak i ay ay naqar naqar soo ko bëttut nag doo mën a dugg xaljana safara nag moom dañ koo ñàkkee maanaam ay bànneex bànneex yii moo xam bànneexu fen la bànneex yii tappale xal li jàmbur yi bànneex yi sàcc li jàmbur yi bànneex yi topp jongama yi bànneex yi topp cigarette yi bànneex yi topp sàngara si bànneex yi nekk ci lu la neex ak na mu la neexee nga nekk ca nekk ku ñu tinki tënkuñ la ci dara yooye nag ngay bëtt def ko bànneex mooy dem ba dugal la nga ñàqi miirab safara bi mu gën a dugg safara moo tax yonentu bi daan wax ne aljana daal miir bi nga xam ne moom lañ ko miiree mu wër ko lépp loolu ay jafe-jafe la ay naqar la ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay coono rek la ay jafe jafeñ la yu bakkan ci waaye nag xal safara tamit miir biñ ko miiree mu wër ko lépp ay sëhawaat la ay bànneex la waaye nag ku bëttut miir bële doo hegg fale ku bëttut miir bële tamit maanaam doo hegg fale kon nag mbokki julli di maag yéen yëpp nañu góorgóorlu fexe ba bëtt miirëb maanaam jafe-jafe aljana bi ndax ñi mën a dugg aljana fexe ba bànneex booba ñu miire safara mu humpuñu ñu wan ko gannaaw te li yàlla daganal mënuñ koo jeexal la mu daganal ñu doyloo ca wëlis li nga xam ne ni xaraamal na ko wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu